ñuy wax dañ ne chaque élève parce que benn blouse nga jàng ko toute une année. toute une année ñu ne deux blouses. waaw mu waroon nekk deux un deux millions cent. ñu ñu ñu doublé ko muy quatre millions deux cent. blouse maanaam yéen xam nga déjà nombre <laughs> élèves yi nekk école publique. non mais bien sûr ñoom ñoo jox les chiffres. jox nañ chiffre commande quatre millions deux cent. waaw ñu confectionné ko quatre millions deux cent livré. ñu avec du retard. non bu dee parce ouverture moom. non bu dee ci ñun élèves yi bu dee ci ñun. on a livré les blouses temps. temps bi ñu leen jox ñoom. temps bi ñu jox ñun. voilà livré nañ ko ñu fay ñu à temps ba bi mujj bi may interpellé le ministre de l'artisanat c'était quarante trois personnes yoo xam ne jotuñu seen xaalis man maa dem vers le ministre de l'artisanat ginnaaw bi ministre enseignement defee commande ba pare ministre de la de l'artisanat mooy supervisé. waaw parce que foofu lañ bokk. waaw bi ñu ko interpellé mu ne on la va payer. ca suba man en rapport ak DER man déplacé wu ñëw DER DER livré ba ñëpp fayee ko ba ma vérifié ba Sénégal nii Sénégal laa wax de les quatorze régions ba benn tailleur dese luñ ko un franc ñu livré ko mais xam nga lu lu kan mooy fay DER DER mooy c'est c'est la DER qui paye DER mooy fay. marché pas DER voilà. DER lañ jox marché bi du ministère de eh, DER lañ ko imputé. Hmm. DER moo mooy joxe avance mooy joxe reliquat c'est la DER. donc nag ni ko réglé nag man yooyu moom seen kii mais DER. DER ay fay mooy joxe avance. mooy joxe reliquat mooy joxe reliquat. ñun DER moo la koy jox directement wala à travers une même les contrats on a signé DER lañ ko signé. waaw ah, kay loolu xanaa non c'est le ministre moom laay moom laay moom laay koy leeral moom laa koy leeral tuuti rek. bi ñu signé ak DER DER moo ñu jox avance moo ñu jox reliquat maintenant bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu réception yi ba pare dafa am ay dépôts ay dépôts régionaux. waaw yu ñu def ci dans chaque région parce que mënoo jël maatam di ñëw di livrer si à Dakar. Mm, waaw ñu def ay dépôts régionaux chaque. benn agent wu di livrer Dakar non Matam maanaam Matam Matam lay livre waaw Thiès Thiès. maanaam lépp dakaar la waroon dajee ci ministère bi. mais ministère bi moo ko décentralisé. ñu im ay dépôt. de livraison de chaque région. ñu yóbbu ko ñun NSS lañ ñu livré woon. mais bi ñu ko livré toog nañu 6 mois 6 mois. ci ci ci blouse yi. mu nekk ci dépôt yi sans distribution. ah oui. oui eh, il a fallu que moo tax moo tax ma ñëw il a sa question am na solo. il a fallu ñu def in sorti comme ni ñu ko defee woon nii ñun tooguñu rek di ñaxtu pour ñu jox ñu blouse yi ñëw ko de dañoo génn def une point de presse mi ngi ci internet bi wax ne ñi ñu jox blouse yi nañu ko distribuer les élèves ñu génn def point de presse. quelques jours après région yi ñu commencé def euh, euh, maanaam remise symbolique ici à Diamniadio avec le ministère. après gouverneur yi def ko ñu de ñu jox ko imputé ko IA yi. moo moo tax IA yi moo yor distribution. ñu parce que ñoom ñoo yor quota école bu nekk ak nangam mais un mois de la fermeture de l' très bien ci la boulot yi génn. xam nga ça veut dire que le marché de l' année moom la ñu utiliser ren pour l'ouverture des classes. non attends li gën a garaaw ma ñëw ma ñëwal information. Ah, euh, biram un mois avant avant les la fermeture de l' ñu distribuer blouse yi. chaque pied grave. ñu war a joxe ñaar ñu joxe benn. Mhm. vous pouvez aller vérifier dans tous les établissements du Sénégal ñaari blouse le président wax. waaw ku ñu ñaw ñaar ñu joxe benn. waaw beneen loo bi duñ ko budgétiser non attends ñu ñu ñëw benn ma ñëw foofu. ñu ñëw benn joxe ko mais nit bu ñu la séddale loolu. lantinoor nga. waaw waroo tee diw. waaw mais xam nga ñun tooguñu rek. jàpp na ñun secteur informel xamuñu dara. comme yéen yéen a ngi contrôlé ñun dañu suñu daal. Ah. di contrôler ñun ñun la télé e les télé e de Thiès. Uh-huh. dañu créé benn télévision. au uh-huh. niveau régional. Uh-huh. am site internet boo xam ne day dem partout au Sénégal. mais dañu dem ci école yi laaj parents d'élèves yi laaj ci kër yi ñaata blouse ngeen jot. balaa ñu leen di sikkal yéen. ñu ne benn. ñu laaj parents d'élèves mu ne benn. ñu laaj le représentant des parents d'élèves mu ne benn. ñu dem IA yi ñu xool ni benn dañuy xaar ba nangam nangam affaire ñu jàpp ne dañuy xaar mais ce qui est plus grave. c'est que projet bi nekk au dessus de au dessus ma wax la ko tey mooy que ni kilifa bu ñu la séddaleloo. Ah. da ngay joxe lépp. Mm-hmm. mais bul téye. Mm-hmm. même boo téyee sax. Mm-hmm. pour année prochaine wala ouverture après bañ a yàqoog yooyu nga joxewaat ko d'accord na mais Birama mënoo ma commandé yow vingt blouses nga jox ma avance ma ñëwal la vingt blouses ñëw jox la vingt blouses. Mm. nga jël dix yi seddale ko ñoom faal ak ñoom kii ku ne benn ñaata moo des. dix du dix waaw ah. man maa la ko ñawal. Ah. nga ñëwaat ci man avec les mêmes blouses. Mhm. nga ñëwaat ci man avec sama logo sama mhm. marque. Mhm. sama bon de commande sama adresse ak sama numéro téléphone. waaw ne ma euh, déwén da ngay am vingt blouses déwén da ngay am vingt blouses dix blouses yi yaa ko ñaw. waaw ngan la waaw. man na léegi kaay ma jox la ko. ma delloo la ko. ma waaw ma jox la dix blouses yi boo amee commande vingt nga nga xam ne dix ngay ñaw. et eh, loolu am na ci secteur bi.